لا لم يدرك waaw euh, daayira Muxaddamatul Xidma mooy mbooloo bi nga xam ne moo nekk ci jumaay Touba di ko saytu di ko seetal ak di ko toppatoo di euh, organiser julli yi ak événement yi fi am lépp lu aju ci jumaa ji ñoom ñoo ko yor ak gestion bu bàq ya daayira Muxaddamatul Xidma boobu nag mi ngi sosu 1994 ci jamonoy Serigne Saliou mu yor liggéey boobu waaye bi ñu doxee ba ci atum 2005 nag ci la ay mbokki taalibe ak ay kilifa yu nekk ci dëkk bi xalaat ne daal war na nañu mën a dundal koor gi ci wàllu ay waxtaani diine ak ay ndogu ni ko Makka ak Madina di defee ndax Touba bu mbooloo di dajala rawatina jumaay Touba waxtu wu nekk nit ñi ngi fi waxtu julli di leen fi fekk te dog dafa jege ak jullik timis kon nag war nañu mën a organiser fii ay ndogu comme ni ko Makka ak Madina defee ba mbokki ja taalibe yi nga xam ne da leen fiy fekk ñu fiy ndogoo loolu kon 2005 ci la commencé waaye bi muy commencé nag toon nii ndax mbooloo mu ndaw la woon daanaka budget wu année bi yëpp sax euh, weer wi yëpp mi ngi aj mi ngi nekkoon ci euh, moins de 1 million 900 et quelques waaye nag mbirum sëñ Tuubaa amul tànki ginnaaw tànki kanam la am ci la dox di dox nag ba yëf yi ñu gën koo yaatal gis ne waxtaan yi war nañ koy def bis bu set gis nga ni nga ko gisee jotaay waxtaan 30 conférence la def ci ci gi waaye itam ndog yi mën nañ ko gën a yaatal ba fii may wax ak yow plus de 4500 personnes ñoo fi doge ñeent junniy nit ak juróomi téeméer ñoom ñoo fi doge daal bis bu bis bu yàlla sàkk daal mu xaddamatu xidma di leen saytu nga la ñuy jënd ñaari junniy mburu ñaari junni mburu boo ko daggee ci digg bi ñeenti junni dagg dagg lay doon kon donc xool nga ne loolu lu bari la ñeenti saaku suukar la ñuy jëfandikoo fukki kiloy café ak juróom mën naa la ko toppal noonu di la ko limal di la ko limal loolu boo ko xaymaa mooy un million deux cent soixante quinze mille daaw suñu budget daaw suñu budget mi ngi nekkoon bi année bi weer bi jeexee cinquante neuf millions et quelque kon ren xam nga ne danañ weesu foofu ndax mbooloo mi day gën a yokk te mbooloo moom day gën a yokk ci jour lu mel ne ajjuma wala événement yi nga xam ne day am ci biir koor gi lu mel ne laylatul xadr laylatul xadr ak yeneen yu ñuy demee ni ma ko waxee jumaa ji Touba day symbole dëkk bi daanaka murid xoli murid yëpp fi la nekk moo tax mbooloo mu baree bari dafii daje commission sociale commission organisation commission culturelle commission relations extérieures commission communication ba ci coordination bi ak secrétaire administratif ñooy mbooloo mi nga xam ne ñoo koy seet nga xam ne cinq 511 personnes ñooy organiser gis nga leen ñi ñooy teg bii ñi nekk ci soxna yi ñi saytu waxtaan wi ñi yor sécurité bi tout 511 personne ñoo fi nekk du 6 heures du matin ba 23 heures naafile yi jeex incha allah. waaw loolu fi ñu koy jëlee mooy daayira Moukhaddamatoul Khidma keesam da koo ber ak keesu ndogo yi. ndax lu jëm ci koor gi c'est spécial lu mbirum social la moo tax daf ko ber koor gi bu jotee mbokki taalibe yeeg fu mën a nekk ci biir réew mi ak bitim réew dañuy indi seen i barkeelu tàmbalee ko ci Cheikh Mouhamadul Mountakha yàlla na ko fi yàgg lool te wér moo ci njëkk a dugal addiyam barkeeloom moo ci njëkk a dugal barkeeloom ci lim bu takku boo xamante ni macha allah njabootu Cheikhul Khadim bi kenn desul ñoom ñëpp waaye itam taalibey Serigne Touba yi nga xam ne ñoo nekk ci dëkk bi ñii day opérateur économique di ay commerçant nekk ci marché occasion ñii day ouvrier ba ci diaspora bi bitim réew ba ci membre daayira Moukhaddamatoul Khidma nii ñuy liggéey nga leen di gis ñuy liggéey di joxe seen doole noonu la ñuy cotiser ñoom itam boo demee ci rapport bi seeni i tur ñoom ñëpp ña nga fa ñi ci tur ñëpp lu waay joxe lu mu tuuti tuuti ak lu mu rëy rëy danañu ko bind boo kiyee dañ la bindal lettre wane ne diw joxe na nangam diw fi nangam jaarale ko ci diw def nañ ko ci kees gi bu weer bi jeexee dañuy defar rapport bi lii lañ financé ci lii lii lañ financé ci lépp am transparence bu leer ndax nag taalibe Sëñ Tuubaa yi day leen laaj lu ñu man waaye di ko def fu ñu xam loolu mooy euh, euh, sologan euh, bi nga xamante ni moom lañu war a doxe ci yoon wi ولا يا